dal leen ak jàmm ci xibaar yéen ñu door kook l'observateur gis li xaatim ci xët jëkk ñëwaat ci mbiru Aïssata Tall Sall moom nag jamono xam ne na ne fekk na ki nga xam ne moo di di ko ci ndoddam yi nga xam ne jotoon na ko wax ci benn émission boo xam ne mi ngi ko séqoon ak Mamoudi Bakane Aïssata Tall Sall doon ci xam ne ne bëri ay kilifa diine yoo xam ne jamono ji ñi ngi dox lu leen mën di am daal lenn rek moom leen ko gënal muy ma fekk ki xam ne moo di njiitu ngir liggéey ak moom am na ci seen diggante muy xam ne ne jot naa waxtaan ak ki xam ne ne nag moo di Ousmane Sonko ak Idrissa Seck waaye mbir moomee daanaka jurul lu bëri 4 fois 0 égale 0 laas yéen kaay di ñu xamal ne jongante riitu réew yi nga xam ne nag moom la ñu mën nga cee am yoon Ousmane Sonko daal leen di dugg ba mu neex daal di xam ne Khalifa Ababacar Sall moomee di ñu ko jàppee daal daanaka du yoon Idrissa Seck jaar fa Ousmane Sonko jaar daa di xam ne ni daanaka jàpp googee amul dara loo xam ne leer na waaye moom bés bu ko Sénégal yi fale Khalifa Ababacar Sall moomee dëna ko génn ca kaso ba mu nekk Vox Populi tegal sees ki nga xam ne moo di Idrissa Seck moom daamal Kajoor mu daal di xam ne nag jamono ji ndax Idrissa Seck élection yi nga na caa am ndam yéenekaay bi di xam ne xam ne nag mën naa jàkkaarloo ak di Macky xam ne na ñu topp ci ginnaawam yéenekaay bi di laas di ko xam ne nag xaw ba xam am na ñu topp ci boppam ndax bi mooy ñetti jongante njiitu réew yoo xam ne Idrissa Seck bokk na ca te munta fexe ba am ndam lenn rek moo ko soxal mu daal di jël nguur Déthié Fall muy Idrissa Seck di xam ne ne loole daal bu daal moo gën ci yor réewum Sénégal daal di delloo Sénégal lim moomoon lim jotoon am te ñàkk na ko te njiitu réew mi daal ko koy xañ te mooy yéenekaay daal di sampab laa jëm waa PDS waa ñoom kan la war a àndal ci jongante njiitu réew yi ndax Madické Niang lay doon wala Idrissa Seck ak lu mën di xew dañoo bëgg a xam ban tànk lenn lu leer loo xam ne jot nañ ko B moo sampub laaj te nag voté munta ñàkk ak lu mën di xew Ablaye Wade nag dowaa gi nga xam ne moom la fa nekkoon na fa daal ne moo di Versailles jamono ko fa mu nekk enquête yéenekaay moom nag xëy def ab ne du ñu voté waaw enquête ne daal bëri ne de na ci te ba léegi amul ne def nañ leen ko ci lu enquête nag di ne bu ñu yor seen carte électeur te du xam fu ñu voté ndaxte kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo waroon a indi ay dafa mel ni dañu koo sëgg ndax yeneen mbir moo leen ñor li ñor te tàbbi te ñëpp di ko xaar combat bi nga xam ne moo war a dox ci diggante Eumeu Sène ak Modou jàpp dat ba combat boobee nag ñu bëri moom la xaar yéenekaay bi di sunu làmb daat ciy dalal ñoo xam ne seen xam-xam màcc na loolu jëm ci wàllum làmb daal di xam ne ne ndax Modou moomee ndax dina daan Eumeu Sène wala sax Eumeu Sène moomee mooy daan Modou kenn ci coach yi Modou yi di xam